jital ci nuyoo bi borom dekk bi di sama turandoo di nuyu imaam bi ak ñu ko wut ñëpp di nuyu mag ñi ak ndaw ñi di nuyu borom xam-xam yi ci dekk bi yëpp di nuyu kilifa yi teew ci jotaay bi mën naa ci jiital suñu sëriñ suñu kilifa ci borom xam-xam bu mag di taar ci dëkk bi Seyd Alxaaji Roqi di ustaaz di jàngalekat maa ngi lay nuyu nuyub lislaam jëla wàcce wàcce waay bu mag bi la yàlla wàcce maa ngi nuyu sama soppe sama nawle di sama àndandoo ci yoon yi muy Seydi Muxtaar Subbu di nuyu ustaazul jalil muy Seydi Ahmad Dam Guèye di nuyu sama nijaay ji ma àndal wala sama nijaay yi mu teew Seydi Alaaji Musa ak Seydi Barham Subbu di nuyu sama mag Tamsir Subbu di nuyu ustaaz Baye Niass subbu di nuyu Malick mi toog di ndokkeel ndaw ñu organisé lu mel nii muy wane xel yi ñu ngi gën a màgg ndax bis yu mel nii nit ñi daan nañ ci organisé yeneen yoo xam ne bu mer loowul yàlla it du ko gërëm loo bu gërëm loowul seytaane it du ko mer buñ demee ba ndaw ñi gis ne war nañoo delloo yàlla njukkal moom bi nga xam ne moo ñu defal fekk mag yi war nañ koo delloo njukkal ci tudd ko war nañ koo delloo njukkal ci nafataat fàttaliwante ku nekk am loo yóbbaloo ndaw ñu def loolu war nañ leen a ndokkeel di ñaan yàlla yàlla yàlla saxal lu mel nii ci dëkk bi ndax lii mooy taarum dëkk mu nekk waxtaan wi nag du ma ko def ci taaru Baye Niass radiyallahu anhu war daaw ndax lu ko yàlla may la ba pare ñu def mënatu ko am du ma ko def ci maqaamaam du ma ko def ci deug dëggam waye dina ko def ci lan mo taxoon ci bay ndax loolu rek moy li ñuy jëriñ mom nak daf ne aw jëlani haqqan li jabril kasri fa inni wakiilu sirri sirri yalla daf ma amal ci deug deug ngir ma jang damu damu bi man la yalla wakil mbootu mboot yi maanaam mboot yëpp mu mooy damm damm bi damm damm boobu mooy lii waral yow doomu adama bi nga naxu sa digganteeg sa borom ba yawmal qiyaamati nga am le ak moom moom la yàlla wax ci alquran ya ayyuhal insaan maa garraka bi rabbikal karim yow doomu adama bi ana lan moo la xot ci borom bu tedd bi la bind bind bu rafet bi ba ngay am léegi moom tey yonent ne réer rek réer rek moo ko xot kon damm-damm biy tax nit di am jafe-jafe digganteem ak boromam mooy ñàkk xam waaye nag ñàkk xam googu la ñëw pour jëlee ko fi réer googu la ñëw pour dindi ko fi moo tax lam njëkk a taalif wax na ci ne la budda an tuqaddima taalluma bi kulli shiraati ilahi muhkama foog nga jiital jàng mënul ñàkk pour nga bañ a fakkastalu boo xamul man ngaa fakkastalu balaa ngay hegg wala nga hegg ba pare fakkastalu ci biir li nga hegg loolu lépp ñàkk xam mu ko indi ku xamul dana fekk lu ñaaw mu lu rafet kan la dana fekk lu rafet kan lool mu ne lu ñaaw waaye xam-xam rek moo mën a tax ba doo am lee ak sa borom yi nga xam ne nag dafay nax nit ki ba am leeg boromam yooyu yëpp tënk sa waxtaan waaye li tax a jug bàyyi mooy xommat nit ñi jëmee leen ci béeb yàlla ci loolu laa bëgg a tënk waxtaan nee na wa ummatu qasdi أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا بين قدري سمج أيتيهم مي محمد لين جميل الفن جميل الجنة بين ديده ما جميلين ci àddina mu ne déedé ma jëmee ci jëf ju bëri mu ne déedéet ku la tegtal àddina na kooku sonal na la wala nax na la ku la tegtal jëf sonal la ki la tegtal yàlla mooy ki la lay bàyyi ne dama leen a xommat jëmee leen ci péeb yàlla mi nga xam mooy ku baax gënu baat mooy ku bëri yërmaane te mooy suñu yàlla kon li ko tax a mooy li tax yàlla bind nit ñi moo ñu xam loolu moo tax a jóg bàyyi ci loolu laa bëgg tënk waxtaan mënoon naa wax ne dama leen jëmale ci péeb yàlla mi nga xam ni aji fayu la mënoon naa wax ne dama leen di jëmale ci béeb yàlla bi nga xam ne ku tag mbugal la ay bàyyi waxul loolu ne mu baax di la junju di jàngal importance su egg ci yàlla njëriñ li mooy dootu amati benn naqar fitna dañuy bare waaye ku jege yàlla dañ ci fitna dañ ci problème bakkaar yi wala kiiraay yi ñooy waral naqar yi ñooy waral jafe-jafe yi waaye lay cosaan mooy yërmaan mu def Cheikh Tidiane daf ne sax meram yàlla wala mbugalam mu ne melo jëf la waaye du melo jëm jëmm yàlla jël lu métti amul fu mbugalam jàmm rek fa moo tax mu ne kuy ñaan yàlla doo ko ñaan ci xadda boobu ndax mu ne jamono boobu ngay ñaan xat ngay ñaan yàlla ci turam woowu di muntaqi moo ci fayu mën naa am amut melo woowu jamono boobu mën naa amut waaye booy ñaan yàlla da koy ñaan ci ridaawu ngërmaaneem rahmaanam mooy melo yërmaane ndax yooyu melo jëmm la du tàqali ko yàlla bu kon jëmm yàlla ya, fitna amu fa fitna li waral mooy na bi mu war a ci yàlla moom mu daw jëm ci àddina wala mu daw jëm ci leneen lu dul yàlla kii raay am mbugal am moom la alquran di juñu ne kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun thumma innahum la saalul jahim bàyyi ne saa yu kii raay amee mbugal am kon fitna yi ñuy dund dara war a mooy sori yàlla jege leer ban koo xoolee sax ci àddina da nga gis ne mboolem fitna sori li nga bëgg wala lu am njëriñ moo ko waral waaye bànneex yëpp jege li lu am njëriñ moo ko waral na ñoo xam ne sori alal mooy seen fitna waaye alal jege leen ñu am ko loolooy seen bànneex am na ñoo xam ne sori seen doom mooy seen fitna. waaye jege ko mooy seen bànneex bu fekkee sori dara mën na laa teg fitna waaye jege dara mën na laa bay may bànneex loo xam ci jege yàlla moom bi nga xam ne bànneex yëpp ci moom la daje bi nga xam ne ku ko sori amatoo dara bàyyi nag ba mu xamee ne nekkee liy noppal nit mooy xeggal leen ci yàlla daf leen ci pay moo tax dama daan wax ne nit ñi buñ bëggee jam nañ jàpp ci fayda rek nañ dellu ci yàlla nax yàlla moom mooy jàmm yonentu daf ne bu leen wax ne assalaamu alallahi saxaaba yi dañ naan yàlla yàlla am jàmm yonentu ne bu leen wax loolu fa inna allaha huwa assalaam yàlla mooy jàmm moo tax buñ bëggee jàmm nañ dellu ci yàlla bis boo labee ci yàlla du tàmbali fit ndax lu yëngu yàlla ko yëngal lu dal moom moo ko dal loolu la bàyyi xam moo tax mu ne man sama jubluwaay mooy xamat nit ñi jëmee leen si pee bi yàlla mu baax bu bëri yërmande di leen junj ne boo bis boo duggee ci pee boobu sa fitna jeex sa naqar jeex su ko defee loolu ci laa bëgg ñu nafat tuuti di leerlu nag di tëbbu ci wax naan ad diinu an nasiha yonent nee na diine ji laayante biir mu biir sama bopp laay biir biir mboolem doomu aadama wax ji egsee ci ne yow doomu aadama xamal ne yàlla bindut la ngir àddina yàlla bindut la aljana waaye laa bind ngir nga xam moom la wax ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun binduma nit ak jinne lu mooy ñu jaamu bàyyi ne yaa nii bi yaabuduni kuni li yàlla namm ci ñu jaamu mooy ñu xam kan mooy ki nga xam ne wax na ne sëriñam ci zahir mooy alquran ak sunna bàyyi amut ku ma dégg waxut gisuma daf ne alquran ak sunna bàyyi ne amut ku ko gën a dégg di leeral ne doomu aadama li tax yàlla bind ko mu xam loolu mooy li bëgg aji dégg bi njëkk koo xam yàlla wax ci alquran ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bindu ma ak jinne lu mooy ñu jaamu ma Baye mi wax ne sëriñam di zaahir mooy alquran ak sunna amul ku ko gën a dégg noonu la ko wax mais li yàlla namm ci wax ji mu wax ne dama bëgg ñu jaamu ma daf ci namm mooy ñu xam ndax jaamu borom seggale ci xam yàlla balaa ngay xam sa borom da nga koy jaamu baay wax hadis bi mbokk mi dëggal la ko كنت كنزلا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت ان خلقا فتعرفت لهم فبي يعرفني يلا لدي كنا نمول كم قمص بغي ما جنيكم نمو يلا خف ليس كم قمص كم قمص وهم دمه mu bëgg ñu xam mu bind xam xammeeku ñeexal leen mboolem li ngeen di gis muy feeñ yàlla daf ci bëgg wane boppam yàlla it ne ci man lañ may xam kon xadis boobu wane na ne li tax yàlla bind mooy dafa bëgg ñu xam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam واخنا ci benn xadis dëggal ne li yàlla li tax yàlla bind jaami mooy ñu xam mooy wax ji mu wax ne wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi yonentu ne sama jaam bi jege ñoo wut ma li gën li ma farataal ci moom nee na la yàlla wax waaye jaam bi dañ ci ma jege ñu ci ay naafee bu ma bëgg su ma ko bëggee maay nekk nopp yi muy dégloo maay nekk bët yi muy gisee maay nekk loxo yi muy téewee maay nekk tànk yi muy te su ma ñaanee ma may ko su ma musloo ma musal hadis boobu war farata yi pour jege yàlla moo tax yàlla sant ko nañ ndax daf ne sama jaam jege ñu la woon liggéey li ma farataal ci moom waaye ci naafile yi la ñuy xëggee ci yàlla dañ leeral ne naafile yi sëriñ si waaye du naafile yu la neex kon farata yi bu jege yàlla moo tax yàlla sant la waaye du ko dugal jëlam du leneen naafile yi bu xëgg ci yàlla moo tax nga jàpp mooy tariqa yi faw nga boole ñaar yooyu pour mën a xëgg ci yàlla gannaaw boo xëggee ci yàlla yi faw nga jamaat lay seede jeexi ci nekk jaam buy ñaan di muslu moo tax xadis bi lam ko tere mooy jaam bi su ma ko bëggee dama koy nekk damay nekk noppam nekk bëtam nekk loxoom nekk tànkam yàlla tudd na ñaari loxo ci abu lahab ñu ne jëm mu jëla ci nam tabbat yadaa abi lahab ñaari loxo abu lahab alkuna ñu ne jëm mu jëla ci nam loo xam ci bu yàlla ne danaa nekk bëtu nit ki nekk noppam nekk loxoom nekk tànkam दोनों में जना को देख मुनाफिना ले आए अपने फिजा हबतु कुंतु सुमो बगे जाम ने लेको yalla nak ko ne ke nga xam ne yalla nek na bu yalla nekké da nga jeex ci mom bu do do yëgëti leneen lu mom waye gën naaw ga nak bo nga demaat bay gis leneen loy bëgg ko ko ñaan ci gis loy muslu ci muslu hadith bi dimi na lolu motax mo suma ñaané ma jox ko suma muslo mo musalu kon xadis boobu wane na ne ci naafile yi la ñuy duggee ci péeb yàlla ba waaye jege yàlla moo ko waral yàlla waxaat na ci alquran ne wama umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin digaluñ leen lu mooy ngeen jaamu yàlla sellalal ko jaamu sellal mooy lan mooy wéetal yàlla kon sellal mooy xam yàlla kon yàlla digalu lu mooy ñu jaamu ko waaye fekk ñu xam ko laay yooyu dafa firi laay li ma njëkkoon a wax ne yàlla dafa wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni foofu foofu rek la yem binduma nit ak jinne jaamu laay diine jaamu gi nag balaa ko yàlla soxla mu ànd ak sellal te sellal kon su ko defee yow mooy déglu la wóor ne yàlla dafa bind pour nga xam looloo waral mu sant la nga jaamu lan mooy sellal lan mooy xam yàlla yàlla jàngal la benn saar bu gàtt tuddee ko ixlaas saaru sellal kon ku bëgg a xam lan mooy ixlaas dellul ci ixlaas wax naag xeebeer yi ak mi kuréel wax naa ñuy dox jëm ci yàlla te eggaguñ ak tariqa bu ci mën a nekk wax naa ñu egg ci yàlla ak état buñ mën a toll saar woowu wax na ak ñoom kenn ku nekk ci ñooñu jubbanti na lay dëng ci yow waaye lay njub ci sa mbir dëggal na lan moo taxawaat ci xalaas yahud yi dañoo wax ne ñoom Uzayr la ñuy jaamu ndax doomu yàlla la moom tam Uzayr di doomu aadama di nit nasaraan ne Insa la jaamu majuus yi ne ñoom jant ak weer la ñuy jaamu kari ne ñun xëy bi jaamu yàlla wàccee laaya muy qul wallahu ahad waxal ne yalla kenn manam ñu jullit ni ñun du jaamu lu ma yàlla ñu hoot beneen yalla bu dul yàlla mbooleem ñu ngeen saxalal yàlla duñ yàlla Iisaa mi ngeen ne yalla du yalla mu dàq ko ci alquran ne man masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulu al taam انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أن لا يفهمون bàyyi fii laa jooju fii mu rafet moo xam ne aarif bi ne aarif la te tarxiis mën na see gis boppam nan la ko bàyyi fii daf ne yàlla daf ne Iisaa ibnu Maryam yonent la boo xam ne yonent yi jiitu nañ ko maanaam yonent yi ñëw nañ ba wëy mu door a ñëw kon moom it dafay dem comme yonent yi demee waaye nag kon du yàlla ndax bu doon yàlla du fi loo ci déggee képp ku fi jógee mënoo nekk yàlla mu ne yaayam yegg na ci maqaama siddiqa maqaama la boo xam ne aarifoon yi xam nañ ko bu fa yegg lépp yàlla moo lay gënal lu dul jaamu yàlla moo lay gënal nekk ak ñi wétli yàlla moo lay gënal wétli ko nit ñi jàngal Quraan moo lay gënal yëglu wax nit ñi moom la yaayam xeggoon yàlla ne moog yaayam dañ naan lekk ñam bàyyi ne képp kuy lekk ñam nag mënoo nekk yàlla ndax da ngay am ceeb te ku soxla lekk da ngaa lot te kuy lekk dana tojal te tojal xellu ci ak yam yàlla ne xoolal nag ni ma leen leeralee ne yàlla rek mooy kenn waaye xoolal gannaaw bu ñu xamee ne yàlla rek ay kenn duñ bañe bàyyi wax foofu lu am solo ne lekk ñam foofu mu tojal te loolu xel du yàlla ku leeral na ne képp ku fi jógee mënu nekk yàlla képp kuy lekk ñam bàyyi na mënoo lekk yàlla waaye lépp loo xam ne nii du yàlla wala mbindeef la dana dee yàlla wax na si alquran kullu shay'in haalikun illaa wajhah lépp ay dem ba mu des jëmmam lan laa bëgg wax mooy su fekkee dégg nga ahadiyatu yàlla gin la junj ci ne qul wallaahu ahad bu la fàttu ba sa fàttu jeey la ne la waxal ne bàyyi yàlla la ndax jugee na fi te danaan lekk ñam soo ko defee rek yow ci biir xam ci nga réer delluwaat nga ci diine yahud ya téegoo dellu nga ci diine nasaraan ya téegoo bu dam fatu ba sa fatu jaay la ne la yonent bi yàlla la wala Cheikh Tidiane yàlla la léegi-léegi nga dégg ko waaye de li bàyyi bind si sirul akbar ba muy jàngale maraati bi wàccuwaay ba mu ñëwee ba ci yonent bi daf ne du yàlla waaye yàlla rek fa nekk mu ne Cheikh Tidiane yonent waaye yonent moo fa nekk borom xam-xam yi ne dax ma daxat nasara fi nabiyihim waxkum bi ma chita madhan fiihi waxtakimi li nasaraan yi waxoon seen wax ci yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu màgg la waaye du a ci loolu kon su ko defee loolu mooy li ngay njëkk a dégg ci qul lañ ay jaami kan moo yàlla yàlla mooy martaba bi nga xam ne dafa dajale mboolem melo yi ak tur yi dara génn ko waaye kenn nekk ko dara génn ko waaye dara nekk kon yow maccu biñ xëcc labal la ci biir yàlla ba ngel la bul gëlëm ci leer ba teg leneen place yàlla wuutal ko bokkaale mujj di majuus wala ngay nasaraan wala ngay yahud wala ngay bokkaale kat yéegoo boo demee si sirul akbar bàyyi junj dafa loolu yu mel nii il faut ñu di ko waxtaane di laayante biir te yàlla rek tax bàyyi ci sirul akbar daf ne maqaama bii mooy maqaama ku yàlla tëj ci ba mu egg ci yàlla. pour que dëgg ne maa yàlla te waxoo ko. waaye yàlla mi waxoon ci làmm ñu garab gi moo wax ci moom waaye yow mi ne yaa yàlla te yëg ko xam nga ne waxoo dëgg waaye day boo fa nekkul yàlla moo wax te lu wax nag ngay gis ku lekk ba naan ba mandi taxaw ne moom moo yàlla wala jiw yàlla taw la xam ne lu ñu wax dëgg bàyyi wax ne sinu ak mën ne maqaama bii mooy maqaama pour jël ba yéegi ko ci biir yàlla ba mu ne ma xaam bu mën a naxeral bu daase mu ne ndax naxam ci pas-pas la aju daf lay nax ci wàllu pas-pas te pas-pas bu yàqoo dara na ku nekk yéen dara yaakaar ne jullit mu ngi tuddee ko te yàlla nanguutu ci mu def dara ndax pas-pasam moo yàq nañ seetluwaat li mu yëngu bàyyi ne pas-pas bu yàq mooy li gën a lu mooy borom maqaama bi dajeeg jëmmi yërmande mu ne pay boobu am na lu la ci mën a def am na lu la ci mën a def nasaraan na a def boo demee ba ne yàlla rek fi nekk nga dox ba xam kan mooy bàyyi ak ñu wax moom nga xool xool gis fu yàlla yàlla nga nekk moom moom fa di xalifa bi yàlla saxaar man laa wax ne waxal ne maay mooy yàlla nga mujj nekk yow te xamu bàyyi kenn ku nekk mën naa bañ am sëriñ wala am sëriñ bu xeggu ci yàlla lu mooy bu xeggu ci maxaama ku dem ba am jël bu bàyyi ne kooku foo mu am sëriñ bu xam bu mat te sëriñ bu mat bu ko suuf yaa ngi koy mooy ku boole diggante ñaari maqaama yi innama alkaamilu man qad jamaa bayna almaqaamayn kaamil mooy ku jàng sharia jàng xam aqiida ku xam benn wala benn benn bëggee si mën naa tarxiis du ko yëg waaye ku jàng sharia xam xaqiqa pour mu juum yomb waxuma du juum na waaye yomb kon ku amul sëriñ bu mat bu xam yàlla boo eggee ci yàlla tarxiis rek ci lay def ngay wax musiba defe ne lu rafet ngay wax ne yàlla dafa bëri sutura doomu aadama dana bay wax musiba defe ne lu rafet lay wax ne kenn ku nekk mën naa ñàkk sëriñ ba mu des ku des bu mu egg ci yàlla moom mu am sëriñ bu egg ci yàlla bu xam yàlla bu mat bu ko mën a génne ci ngeen maanem boobu te diir ko ba muy seede kon yow ma cëw bi moytul dégg ñu ne yàlla kenn la nga xam lan mooy kenn yàlla ba nga jël leneen teg ko palaasam loolu dinaa ci gën a waaye yow mahjuub bi nga xam ne yàlla xiir na la boppam moytul jàng ñu ne yàlla kenn la tax loo dajee ne du yàlla wuutal yàlla ay bokkaale yu dul jeex ci xam ne yàlla xam na yow xam nga loolu mooy ñàkk teggin yooyu yëpp ñàkk léegi mooy yàlla xam nga bëgg a te yàlla di wax ci alquran ne laa sharika lahu lan mooy laa sharika lahu laa jii ku jàng naxu da ngay xam ne dafay dàq sa mboolem xeeti laa naafiyatun lil jins laa cee taxawaat li muy firi mooy yàlla amul benn xeetu bokkaar yow nga ne du ma ko bokkaale ci jaamu bi waaye danaa ko bokkaale ci xam loolu bokkaale la yàlla rek laay jaamu moo jaamu keneen nga bokkaale woo waaye yàlla xam na ne danaa xam xamal keneen xamal leneen moom benn xeetu bokkaale la yàlla def ne laa sharika lahu duñ ko bokkaale ci dara laa fi ibaadati wala fi kenn du bokkaale ci jaamu gi kenn du bokkaale ci xam gi kaw teef naka la nit di amalee leneen yàlla te yàlla nekkoon ci démb moom rek dara nekk doon ak moom lu toll ni mbokk yoo amul woon démb ba yàlla nekk te ñun ñëpp jàng nañ ne yàlla dafa jom mu ci xàqam mu soppeeku jom mu ci xàqam muy joxalu jom mu ci xàqam muy jaxasoo mu dee fii ma naka lay tere di amee gën a mu fa nekk moom kese kon ñoom yàlla yi boppam bul dégg ñu ne yàlla kenn la ba tax nga yaakaar ne leneen am na dul moom déedéet du xam ak leneen moo la xiir sa borom waaye njortu ne leneen ak loolu moo xiir yàlla bàyyi wax na ci sirul akbar ne jëf mooy nga xekk ci yàlla jeex moom fàttu dëgg mu ne mooy nga xam ne jaam bi leneen yiw ko yàlla waaye njort yi mu njort ne leneen ak suñu waroo ko yëriñ bàyyi na yàlla jomm na leneen li fi nekk ak moom su yàlla bëggee tànn jaam yàlla ñu ci yàlla boole ci ñun tànn dafay yëkkati njort googu rek nga egg ci yàlla egg ci yàlla gi ngay gis yii yëpp du gis lu bees loo gisul woon du egg feneen ndax meetar wàññeeku ci yow dara wàññeeku ci yow te nga ne jeex nga ci yàlla ndax yàlla dafa yëkkati njort li nga njort woon rek loolu rek moo nekk ci yow li nga njort woon ne leneen rek bis bu la ñëwee ci yow nga gis sa borom kon yàlla saxal leneen lu yàlla loolu danaa ci gën a ñëw ñoo ne la suba xaw ma kaana la ma kaana lay cosaan mooy lu nekk dafay des ca la meloon bu soppee yàlla nag la doon mooy mu nekk fi moom rek ba maa ngi laaj naka lay leneen di amee ànd ak borom boobu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ba léegi yàlla rek moo ci hadis bu wér ñëw na si saxihu muslim imam nawawi sharhab yonentu ne laa ilaha illallah wahdahu yàlla rek mooy kenn azza jundahu moom rek mu dëgëral ay soldaaram wa nasara abdahu yàlla rek moo dimbale ay jaamam wa hazama al ahzaaba wahdahu boo yëpp mbooloo yu complot yonent yi pour xeex ak moom yàllaa leen lot yonent teg ci wax ci am solo mooy fala shay ba'dahu laa googu laa naafiya li jins la yonent ne dara dara dara amul gannaaw yàlla kon moom wan na la ba léegi li amoon démb rek moo am waaye xëy na yow yaa njort leneen dul moom fexeel ba yow mi xamagul yàlla nga génn ci njort lu bon loolu ak kiiraay boobu imam Nawawi bi sara hadis bi def ne amma qawluhu fala shay'a ba'dahu maanaahu la shay'a siwaahu yonent wax ji mu wax ne dara amul gannaaw yàlla li muy tekk mooy dara amul lu moom noonu la ko imam Nawawi waxee loolu nga dégg suñu benn wax ñoom nag namul ci ne lii ak lii ak lii ak lii yàlla la mooy yàlla lañ wax loolu dinaa ci ñëwaat kon su ko defee yow mahjuub bi bul bokkaale yàlla ci xam amal leneen lu moom lan ngay bokkaale yàlla di amal leneen te yonent mu ngi naan la allahumma antal awwalu fa laysa qablaka shay'un muy hadis bu wér yow yàlla yow rek yaa njëkk dara njëkkul kon njëkk yàlla dara amul mooy moom mu teg si wax ju am solo nañ ko seetlu bu baax mu ne wa antal axiru fa laysa ba'daka shay'un yàlla yaa mujj sa gannaaw dara amul yonent bi waxul ne bu fi mbindee bi jógee yàlla yaa fi des déréewul noonu mu jege yàlla ngay am dara waaye gannaaw ba nga amee dara amul ne bu fi mbindee bi jógee yàlla yaay des def a yàlla gannaaw ba nga amee ba léegi dara amul mu ne wa anta zaahirun falaysa fawqaka dara farewul la kaw ndax lu nekk li ko faree kaw moo ko mën a boo sudul dara doo ko mën a muur mu ngi ne yàlla mu feeñ moomu ba nga xam ne dara muurul ko boo ko gisul yaa gumba waaye moom muur boo ko gisul yaa fàttali waaye moom fàttali mu teg si ne wa antal baatinu fa laysa duunaka shay'un yàlla yaa nëbb maanaam dara génnul la kon maa ngi laaj biir nga xam ne mahjub la mu jéem a wëriwaat borom boobu borom boobu nga xam ne junj yàlla moom rek moo am ba pare def lu yéeme junj yàlla dara moo loolu mooy yàlla rek ñu bokkaale lu yéeme ko dama ne moo fi nekk loo taxaw ne mooy yàlla naa jéem ku xeggul ci boromam bu fekkee lënt na la nag li ma wax nii lënt na la wala nga sikk ci ba pare ne yàlla ngay jaamu xoolaatal sa bopp ndax yàlla bi ngay jaamu mu ngi naan billahi shakkun ndax yàlla sikk am na ci nag ngay jaamu borom boo xam ne buñ la jàngalee xadiis yi rot ci moom yow nga jaxasoo sikk ci biiram loo xamati noo koy régler kon dese nga beneen jéego yow mahjub bi mooy jéema topp yoonu Ibrahima bu dañ ci sikk yi nga xam ne dalla la pour denc lëndëm gii nga xam ne mën naa tax xadis yonent bi doo ko dégg moom la yàlla di tudd ne wa tabi millata Ibrahima xanifa toppal yoonu Ibrahima lan mooy yoonu Ibrahima yoonu Ibrahima alayhi salaam bàyyi Ismaayila mañ xamoon waaye yoon woowu boobu lañ bëgg xam ne mooy yoonu Ibrahima mii dëkkoon bi dina bàyyi kawal yàlla nee na toppal yoon woowu ana lan mooy yoon woowu yoonu Ibrahima mooy fexe ba sa xol du dal mooy nga jëloog yàlla Ibrahima dafa bokkoon ci jaam yi nga xam ne jëloo rek mooy ka seen xol dal yàlla daf ne toppal yoroo jaam yaa xaj am na ñoo xam ne bu ñu amee àdduna seen poche yi fees dell luñ bëgg a lekk lekk seen xel dal am na yàlla man waradu bil hayaati dunya wa tma'annu biha ñoom gërëm nañ dund àdduna ci la ñuy lal bu compte banque yi feesee duñu benn problème bu ñu yàggee rek naqari rek yàlla ne mu topp leen boobu am ñoo xam ne si tudd yàlla bu bëri tur wu ne dañ ko laaj si mu jaar lu lañu waaye Ibrahima loolu dara xolam ana lan mooy dara xol jeno moo tax mu ne yàlla wan ma nak ngay dekkelee liggéey yàlla ko wan tumin qaala bala walakin li yatma'inna qalbi bi maada bi zikrillah yamituni yàlla bal bi ru'yati wal iyan ibrahima ne yàlla wan ma ni ngay dekkelee way dee yi yàlla na ko xanaa gëmoo mu ne gëm naa waaye dama ko gis pour sama xel daal kon yow Ibrahima mooy bokk ci ñi nga xam ne gis mooy dalal seen xel toppal yoon woowu bis boo sooboo lii ma doon dimbali da nga ko xam mu la nañ xadis yi yonent doon wax dana la leer nañ da ngay egg ci yàq ya yoon woowu moom lañ tuddee fayda bi rek bu njëkk mag ñi daan nañ ko jaamu yàlla bu seen xol set bañ mën a xam seen borom dund dund malaaka tey mun na tuddee fay dara yoon yi dafa gën a gaaw gën a yomb fay boobu nag nga xam ne mooy yoonu Ibrahima bi yàlla di junj boo ko toppee cax ya doon cax da ko mën a teg soo bul yoonu Ibrahima yoon mooy la na nga bëgg yàlla rek te bul ci xeeb sa bopp di leen ndaw nga ndax ndaw mooy liggéey. mag moo gis mu baax ba muy nekk ndaw la baaxul yàlla rek nooloo lu dul yàlla loolu mooy yoonu Ibrahima boo xam ne soppee ñëpp nga wala li ñëpp nekk neex na la dinaa fekk rek wax naa ko tey Malick ñi ma àndoon ma ne ko ku bëgg gërëm loo ñëpp dinaa fekk foo ku baax ngay soppeem mu nekk ci lu bon nga noonu lu bon la noonu jëm ci waaye lu bon loolu lañ koy noonu waaye ku ne man ñëpp dañ ma gërëm lépp ba baax dinaa fekk rek doo mën a xam xam sa borom da nga mel ni mooy noonoo lu dul yàlla Ibrahima def ne lii illa rabbil alamin lu dul noonu yàlla rek la bëggoon loolu Ibrahima alayhi salaam lay na ko nan la ko lay moom bokku ci ñooñu nga xam ne ne bëgg nañu yàlla rek xam ko wala boog bu dul yàlla sama doole am ko da jébbal boppam safara sax jébbal doomam yàlla tër ko yëbbal alalam gan yi Ibrahima alayhi salaam taxaw na di woote ci yàlla dañuy buur bu ndóor muy Namruud mu ne doo ko fi waxee. Ibrahima ko fa mu taal safara soo xam ne nit mënu koo jege. janaaw sax mënu koo jege lu muy daanu. defar defar min min jëliya pour sànni ko ci safara. bañ koy sànni ci safara sa malaaka mi yore ndox mi dajeeg moom na ko boo bëggee léegi moo koy safara si mu ne ko wax mu soxla ci yow. Jibril ñëw ne ko ndax am nga aajo mu ne ko bu ci yow la ne amul benn ko ci yàlla mu ne ko yàlla xam na li ma nekk maanaam dafa bokkoon ci nga xam ne lu yàlla def neex na la mu nekk man ko ñaan ñu sànni ko ci sawara te lu mu ci jëlee sawara si seet buy seetlu boo xam ne du ko lool ba Ibrahima wax na ne fan yi gën a neex ci dundam mooy fan yi doon dund si sawara ana lan ngay déggee ci loolu mooy njariñu jox sa bopp yàlla ni la sa waay ji wu jigéen yërëmee te ku ne xam ne ne yaram yërëm na ko ni la yàlla yërëmee ko foofu bis boo nangu la yàlla nga am fit mais ku am fit la ku ne da nga koo nangul yàlla nag dana nattu waaye bu mu bële bu doon keneen buñ koy sànni safara si mu gis jibril danaan ko bisimilah xet leen affaire bi kat ñëwuma ko Ibrahima def na ko soxlu ma mu ne ko ñaanal yàlla mu ne ko soxlu ma yàlla xam na ne ma nekkee du def baax waaye ba mu demee dafa set nii la yàlla di def daan teeg jaamu bi mu bëgg ndax léegi nattu ba ñëpp yaakaar ne yàqu na danga xéwal seen leen yóbbu bis boo ko ko nekk am maa boo dëppee rek am problème kooku lay lere yàllaa ko gënal boppam mu am doomu di Ismaayla muy taaw yàlla ne ko rendi magee ci la mu dem jël paaka tër ko rendi paaka bi nag mu tëdd yàlla ngi ko xar ne ko dëggal nga li ma sant sa daftaru ya moo tax teg si lu am solo mooy innaa kadaalika najzil muhsinin seetlu leen laay def mooy wane nga ne yàlla la gënal sa doom ba attan ngaa reen sa doom bu ko yàlla bëggee kooku doomam doxul digganteem ak borom lii mooy yoonu Ibrahima ma nga xam yàlla du wax rek nga xam yàlla yombul xam yàlla ay kàddu ak dund yàlla benn xëy alxuraan ba mu jeex ak dund alxuraan du benn man laa wax lu bëri ci yàlla ak dund ko du benn waaye nag lañ soxla mooy ñu dund ko bu fekkee bëgg ngaa xam yàlla xawal yoonu Ibrahima ne la sa yàlla gënal sa bopp na la yàlla gënal sa doom waaye innaa kazaalika najzil muhsiniin lan la ci déggee liñ ciy déggee mooy képp ku nangul yàlla leen sax dund ci bëccëg. dëkk rek la cay jëlee doo la alal Baay daf ne amoon na juróomi juróomi junney nag nag bu nekk am na xaj bu koy sàmm wala amoon na xaj bi mu nag yooyu xaj yi dañ leen takkal malaaka yi ne yàlla Ibrahima li mu def nii kat ëppal la alal ju bëri ji xaj yi mu takkal wurus ah lii lii yàq la yàlla ne malaaka yi dem ngeen natt ko ngeen xool mooy kan. ba ñëwee malaaka bi ñëw ne ko Ibrahima sa xaj yi nga takkal wurus nag Ibrahima dama bëggoon ne adduna du doyee ji la wurus du dara moo tax takkal ko xaj yi la xaj dafa doyee ji du doyee ku doyee rek moo ko doyee sow. mu ne ba sa nag yu bëri yi nga moom mu ne ko tuddal yàlla ma jox la genn wàll mu ne laa ilaha illallah mu ne ko tuddaatal yàlla ma jox la nag yëpp mu tudd yàlla mu jox ko lépp ne ko tuddaatal yàlla ma jox la li ma am ci alal yëpp mu tuddaat yàlla ma ne ko jox naa la sama alal yëpp mu ne ko tuddaatal yàlla ma jox la sama bopp di la liggéeyal fekk maa ngi dund mu tudd yàlla daal di tourné malaaka bi tourné Ibrahima mu daa yóbbu li nga moom mu ne ko man awma soxla ci yàlla du àddina malaaka la yàlla ma yóbbu ci yow pour ma xool fan la alal ci toll Ibrahima ne alal ñoo xam ne génn naa alal ja dem tabaxee ko baytul maqdis def ci moom lañ tuddee saqaayifu Ibrahima yooyu nekk baytul maqdis ba léegi ci alal jooju la jóge kooku jël na alalam jox ko yàlla kon boo bëggee xam yàlla foofu nga xaw yoon woowu sa bopp bu ndox sa digganteeg sa borom sa njaboot bu ndox sa digganteeg sa borom sa alal na nga àtt na génne lépp bu ko sa borom soxla loolu mooy bëgg yàlla Ibrahima noonu la meloon bëggul woon lu mooy yàlla kon kun Ibrahima yan boo bëggee sikk dañ ci yow boo bëggee am yaqin faaw nga mel ni Ibrahima mun rek ni ñeen ñi wax man xam naa yàlla man xam yàlla mooy nga xam ne yàlla moo bind asamaan moo bind suuf moo ñu moom am na moo njëkk day des dafa koomal comme loolu mooy xam yàlla yeneen loolu gëm yàlla la waaye du xam yàlla gannaaw gëm yàlla am na beneen maqaama bu ñu wuti mooy al mooy nga am lu la wóor loolu mooy yaqin loolu mooy gëm yàlla bu mag moo amul yaqin gëm àllaaxira gëm yàlla gëm yonent yi gëm nga yàlla waaye dafa mag moo tax mooy Ibnu Mas'ud al yaqinu al imaanu kulluhu lii Buxaari andi na ko ci téeréem mu ne yaqin mooy imaan lépp lépp imaan mooy nga am lu wóor ci sa borom yaqin boobu nag mënu ànd ak sikk mënu ànd am koy foo am xam-xamu baatin nga seede malakoot moo tax yàlla ba mu bëggee Ibrahima am yaqin daf ne wa kadalika nuri Ibrahima malakuuta samawati wal ard wa li yakuna min al muqinin yàlla ne dama bëgg woon Ibrahima nguuru asamaan ak suuf su nëbbu ci li asamaan ak suuf moom laa ko bëgg woon ngir am lu ko ba ndax jullit dana wax ne Ibrahima gëmutoon yàlla jekku loolu en fait gëmoon na yàlla ndax dafa rek gëm yàlla mosul jaar ci bokkaale waaye gis gis malakoot loolu moo ko boole ci ñam yaqin léegi kon gannaaw gëm yàlla am na beneen ma bu nekk mooy yaqin Ibrahima gëmoon na yàlla waaye yàlla mën yàlla def ne mu ko woon malakoot ngir mu yaqin googu boo ko amee danga mën a teg ci junj yooyu ma doon junj loolu mooy yoonu Ibrahima kon foofu nga topp yoonu Ibrahima génnee lu dul yàlla ci sa xol góorgóorlu bu xantee góor ñi ba seede wala góor su boobaa nga xam sa borom xam ko wóor buñ wax ne gis wala góor boobu yonent yi rek ñoo ko mën a am déedéet képp ku laabal boppam am leeru yaqiin mën a hegg ci malakoot jii ma junj moom laa la wax ci beneen laaya yoo xam ne ñëpp la wax képp ku weddi rek yàlla nga ne awalam yanzuru fi malakooti samaawaati wal ard wa ma xalaqa min shay xanaa dañoo xoolu ci malakootu asamaan ak suuf asamaan ak juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar mu jóge ci dara bàyyi ne ñaar moo am xalqun min laa shay ak xalqun min shay mbindeef mu jógewul ci dara mu ne mooy yonent bi sallallahu alayhi ak mbindeef bu liggéey ci dara te mooy lu liggéey ci yàlla de ñii di wetti xanaa dañoo gisul loolu dañoo li yàlla bind mu liggéey ci dara ma xaama yooyu boo bokkantee ba gis ko yàlla da nga mën yàlla xam bu wóor yàlla yow nga xam ne yàlla yéen na la boppam ne xekk nga ci te yaa ngi gëm dara ci même waxtu yaa ngi koy wet képp ku ne egg na ci yàlla am na yaqiin xam na benn mu bokk ci ñaari kuréel yi benn mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo jaar ci seen bu mat ba mu eggal leen seen ma ñu waxuma ak ñoom damay wax ak ñoom danaa wax ci mujj waxtaan ñooñu alhamdulilah ñu ci ñëpp benn muy waxaabi bi di réer ba ne yàlla ci asamaan yàlla kat keroog ba yonent dina ñaan dafa romb asamaan yi juróom-ñaar door a asamaan yonent ci biir asamaan la koy fekk. kii la yàlla ci asamaan boobu boo xam ne ci ngërmaande la nekk yàlla mu yaatu nekkoon fépp nga ne du tey nga ne ci asamaan nekkatu fii kon tey weddi nga sa bopp gëm sa li nga woote gëm weddi ko léegi léegi noonu mu ci asamaan ku gëm dara ci même waxtu mu weddi ko kooku xam nga ne amul yaqin waaye ngeen maane ci la nekk borom siraaj saalik nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy rañaan dafa romb asamaan yi ñaar romb sidratul muntaha door a daje boromam kon yàlla nekkul ci asamaan war a mu bokk ci waxaabe yi réer ba ne yàlla ngi toog ci kawara sam comme man ni ma toogee sama kaw siis bi ñu ne leen naka la aras di attanee yàlla ñu ne yàlla ko may kattan ba mu mën koo xer dëgg xam ngeen ni réer foofu la yem fexe ba mu bokk ci ndax yàlla melo mu am jàngal na ci alquran ne mbindeef am melo mel noonu kon kàttanu yàlla amut lu mën a am lu mel ba man ko attan fan la yàlla jàngalee loolu mooy nit mu aaj nga xam ne yàlla defoon nañu mën a buddi doj xen ko sànni ndax kàttan ñoo dem ba yëg seen doole ne man ashaddu minnaa quwwa ana kan moo ñëw bu kàttan yàlla ne awalam yaraw an allaha alladi xalaqahum wa ashaddu minhum quwa xanaa gis ngeen gisuñ ne yàllaa leen bind di leen bind kay mooy lépp kattan ngeen déggee ci ne nekkee ki bind mooy ëpp kattan la bind kon aras naka la mën a amee kattan lu mën a yenu yàlla ñaareel ba yàlla ñu nekkoon fépp naka lay demee ba mën a xaj ci benn barab loolu wax day nekk te ne ñoom ñoo nekk ci tawxiid moytul bokk ci loolu ndax bokkaale dégg dégg kon su ko defee su ko defee laaj bi mu wax dafay war a ne melu yàlla am mbindeef mënatul am mer mu bu fekkoon ne yàlla man dana may bindee melo mu mel ni melo du wax ne maa leen bind kon maa leen ëpp kàttan ndax xel damay nangu mu may leen meloo kàttan bu mel ni kàttan yàlla waaye xel mënu nangu loolu moo tax yàlla ne maa leen bind loolu rek mooy wane ne maa leen ëpp kàttan yàlla bi naa ras ko mu ëpp kàttan ras su ko defee am na ñu dem ba fekk ci yàlla mi toog ci kaw ras yàlla it def na indi dafa yaatu loolu alquran kon amul lu yaatoo ni moom ba mën koo peeg loolu it yow jilit bi bëgg wéetal yàlla sukkandiku sootu ixlaas war loolu ne yàlla xaj fekk kon bu ko tënk ci barab nit it mën naa wax ne xam na yàlla te ci sëriñ ba mu ko ci boromam waaye nag gëmul ne yàlla dafa nekk ci asamaan wala dafa toog ci daf ne yàlla ngi fépp xam naa ko kooku it dama ne rek pour ci yaqin waaye ci ngir maa dara nekk ndax yàlla ngi fépp waaye fi nga nekk yow yaa fa nekk bu yàlla nekkee fépp rek mënuloo fa nekk boo ne ngi fépp gëm nga du jaxasoo ak mbindeef ba pare ne mbindeef yaa ngi fi yàlla ngi fépp su boobaa même li nga wax moom nga wet benn nga wax ne yàlla ko fépp dafa dagg di ko jaxasoo ak mbindeef yi yenn parti yi mbindeef yi nekk yenn parti yi mu nekk nii xam nga loolu bokkat yàlla wala nga ne yàlla rek fi nekk leneen nekkut kon su ko defee li ma bëgg a wax mooy Mahdi bii laay wax ak moom bii ngel la ngel maa ne mel noonu génn ci bul saxalal yàlla bokkaale ci xam gi xamal na yàlla rek mooy ki nekk ñi nga xam ne nag ñoo topp yoonu Ibrahima ñoom ñoo dañ ci sikk gi ak ngel maa bu ko defee lii mu wax boo ko seetloo bu baax dégg ko dana la jàngal sekkee bi tax yàlla di joxoon juriñ naa leen war tabi millata Ibrahima haniifan yonent bi topp la yoonu Ibrahima juriñ mooy topp la yoonu mooy lan mooy yow gis moo la doy loolu Ibrahima mooy lan mooy bëggatoo lu moo yàlla sa bopp du dox sa digganteeg sa borom sa alal du dox sa sa borom sa jaboor du dox sa sa borom loolu Ibrahima mooy lan mooy janoog malakoot lii moo doon Ibrahima loolu nag mënoo ko am lu may nga jàpp ci loxo sëriñ boo xam ne dafa am iznul xaas maanaam ko am ijaaza jëlee ko ci ko am ijaaza moom yóbbu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ mu yare gannaaw mu paree ci bopp bopp mu koo xam ne nii dafa am xaalis ñu jox li yàlla ak borom xaalis kooku du yàkkee waxuma koo xam ne dama ànd ak sëriñ moom neex ko mu gis affaire yi neex niru nguur mu fi ku ne man man sëriñ laa ijaaza naa sama bopp sama sëriñ bu ma ijaaza yi man demal naa sama bopp jërëjëf kooku amul ndigal nga am ndigal mooy mu yar bare ko pare lañ pare jox ko ndigal ne ko deel te teg si siraatal mustaqim boo ko ànd ak jub léegi nag ñu ijaaza yomb na lool léegi-léegi sax ijaaza koo xam ne xamoo sax mooy loolu ndigal loolu ci nit la jugee waaye jugeewul ci yàlla ndigal loolu ci bakkan la jugee waaye jugeewul ci sëriñ buñ la yaree nag ba nga mag sëriñ xool la ba xam ne yow xelloo nga yar ñeneen mu jox la ndigal nga yare kooku laa wax ne kooku moo la mën a eggale ci yàlla doo réer waaye jàng sharia jàng téere yi rek du tax mukk nga mën a eggale nit ci maqaama yi nga xam ne maa ngi ko jëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko digal pour mu xool ñuy jëmee ci yàlla boo ko yàlla yónnee waaye teewul lenn lu nekk daf ñu daan xaar ba ndigal ngir jàngal la importance bu ibnul xaas yàlla def na ko yoroon waaye balaa muy woo mbokkam sax xaaral na ci ndigal yàlla na ko anzir ashiratika al aqrabin waaral sa mbokk yi la jege bu ko neexoon ba ko yàlla defee yoroon rek léegi waare waaye dafa xaar yàlla mu la yàlla def na ko yonent waaye dafa xaar yàlla bu fa daax bi ma tuumar wa aarid anil mushrikiin léegi wooteel ci kaw buñ la bëti dara da nga wan gannaaw bokkaalekat yi mu door a feeñal woote jëkk loolu daf doon nëb yàlla may na ko ndigal mu woote ku yàlla may ndigal nga woote am nga dara boo xatee ci barab waaye barab bi gàddaay yàlla ko fa digal rey nañ aw nitam mag mun na xataa lañ ko def nañ ko lu ne waaye génn bi mooy ci ko ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na màkk di julli ji ñu song ko di ko doox war na may wane bu xatal bu ne nekkoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuñ xatal ku ne rek nekkoo ci ma xaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam song ko di ko doox romb na gaaram place yi sangi màkk yi ñu toog mu romb di julli jël euh, euh, euh, malaan rek takk ca dox ga xooj xam nga loolu mooy làmb rek Abubakar moo ñëw song leen ne leen ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi Allah ma ndax da nga rey koo xam ne dafa ne ne yàlla rek yi bàyyi yoon ci song Abubakar ñu dóor muy dóor moo tax mbirum yàgg naa métti ne dóor muy dóor ba muy ñibbi këram bopp bi ñeent yi buloon waaye loolu laal ci këram mu dëkk ndax këcc nañ ko ba amatul loolu lépp taxul mu gàddaay balaa muy gàddaay daf ci digal ko ba wax ko ban waxtu la war a gàddaay wala ma ci Rahiibul Maxtuum da nga ko fekk lu mel noonu wax ko ne ko guddi gii bul fanaan sa lal bi nga doon fanaan kon lépp lu def ci yoonu jugee rek daf cee xaaral beneen ndigal loola waral jàng nga am nga xam-xam am nga droit woote waaye am na ci loo xam ne war nga ci am digal doon ko def moo tax ku amul digal xëy na ci yàlla lu mën a tarbiya nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex sax balaa mu koy def fayagu xeexam lépp fayagu la mu mosul xeex waaye dañ koy song mu fayu loolu rek la daf ci am dëgg xaar yàlla ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu yéen ñii xeex ak di leen rey te dañ leen a tooñ digal nañ leen ngeen fay te pourtant bu ko neexoon mu ne man yonent yàlla laa kon lii lépp am naa droit def ko teg ko ci ne yàlla ma ko sant waaye leen lu nekk daf ci xaar ndigal bàyyi xam na ne mooy borom fayda waaye nee na balaa mu koy woote sax daf ci kon boo bëggee xam yàlla moom nga topp sëriñ boo xam ne dafa am ibnul xaas ba'da ibnil aam gannaaw bu jàngee ci kilifa xam li mu war a xam yëpp am droit leeralal nit ñi dafa amaat beneen ndigal bu ko may ndigal la ko yow mën ngaa xool ci ci yàlla sëriñ bu mel noonu moo mën a eggale nit ci borom bi subhanahu wa ku mel nag wax naa ne mooy ku pare ci bakkanam man nag bëgguma waxtaan yu neex mu xumb wala li ñuy tàcc daanu mais dama bëgg wax li am njëriñ ku pare ci bakkanam kooku a ku ànd moom mu dundal sa bakkan na ko ànd ak sëriñ fi lu may bëgg oto bu rafet wala garage yu rafet wala kër gu rafet parce que loolu la waaye sëriñ bu mat boo àndeek moom dafay génne sa xol bëgg leneen labal ci bëgg yàlla ñooñu ñoo mën a xam yàlla te ki xam dara moo ko mën a joxe ñi xam naxu kay ñoo mën a jàngale naxu ñi xam luxo ñoo mën a jàngale luxo waaye ñi xam yàlla ñoo mën a xekkale ci yàlla kon booy wut sëriñ bu dee bëgg nga xam fi yii ma doon junj foog nga wut sëriñ boo xam ne dana la yar ba génnee la ci lëndëm ak sikk ak làmbatu dégg nga yóbbu ci leeru wéetal yàlla ak booru sa borom ñoom la junju ci alquran ne wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoonu ku dellu ci man bàyyi ne ki dellu ci yàlla mooy aarif billahi kon pour nga xam yàlla foo nga topp yoonu aarif billahi ñoom la yonent junju ci beneen hadis mu ne sëriñ ulama mooy laaj laajal borom xam-xam dagan naam dagana borom xam-xame nga waaye mu ne wa xaalitil xukama mooy jaxasoo jaxasoo ak ñi xam mu xam-xamu sharia maanaam koo tudd sharia waaye xam nañ yàlla ndax dana dégg seen wax lu yokk sa xaal dana gis seen xaal bu góor doo sa xaal waaye bàyyi yéen ne booy bu sëriñ àndal ak bu mag àndal ak mag yi mag yi ñooy ñen mooy ñuy xam seere ak bu dee nga bëgg sëriñ jàpp na la wóor xam nga seere xam nga kooku mooy kabiir kooku moo jëla àndal bu dee jaxasoo nag képp kuy wax ci yàlla rek mën ngaa jaxasoo moom ndax mën ngaa dégg ci moom baat bu yokk bu dee laaj nag di jàng seere rek ngay laaj xam lu dagan ak lu xaram kon hadis bi jàngal na ñii ñooy ñi nga war a ànd ak su ko ko xam ni jullit nga rek maa ngi wax ak yow ci la lan moo tax yàlla bind la ak ban yoon nga mën a jaar ko foofu ci yow ma fuuti nga xam ne mooy xawaayu si tariq tariqati dafa wax nit yu hegg ci péyam yàlla bi ak melo yàlla ya tur yi dina dafa dajale xam-xam wooy njëkk yi ànd ak mbooloo mu ñëpp ànd ak saxaaba yi ànd ak taabine ànd ak ñëpp jaamu yàlla jaamu yàlla ngi sa jinne lu mooy mu jàpp ci loxo ku am ndigalu xaas kon jaamu yàlla bu bëri rek mooy mel yàlla du am xam-xam bu bëri mooy tax nit ñi xam yàlla bu doon loolu waa xam na yàlla yu ànd ay yu baax rek mooy tax nga xam yàlla waaye jàpp ci loxo yi ku hekk te yaru te bare nga ànd moom ngir bëgg yàlla ak bëgg jege yàlla loolu mooy eggale ci yàlla loolu la Cheikh Mor Fouti wax bàyyi na ku bëgg egg yàlla di xoote ay maqaama te bëggoo wëli yàlla yi bàyyi na foofu la may nar waxu kon ku bëgg egg ci yàlla foofu mu bëgg wëli te foo bëgg dara foo bëgg topp baari lii dafa jaamu yàlla jaamu yàlla ñu seet jinne dafay dóor ci weñ bu set rek weñ bu set la ku ciy dóor pour am safara doo am benn safara kon am na ñoo xam ne boo leen waxee bàyyi wax na rek ñoom amaana du leen neex waaye Cheikh Moussa Fouti laa njëkk a wax balaa ma bàyyi ba pare dëggalee ko waxi bàyyi war nañ ne li jaamu yàlla gi bëri bëri bëri bëri doo xëy ko ci yàlla tariqa bi nag kenn weesuñu si amul lu jaamu yàlla yu bëri bëri bëri mu xeex ci yàlla mu ko defee da xam sa borom nga xam ne dara taxul bind la mooy nga xam yàlla moom. zikar tamit yii nga xam ne wax naa ne mooy eggale nit ci yàlla du zikar yu la neex xam nga hadis bi jàngaloon nañu ne farata yi moo gën waaye naafile yi mooy eggale nit ci yu la neex jamono tuuti nee na naafile yooyu mooy naafile sëriñ si maanaam tarixa yi moom rek mooy li nga xam ne boo jëlee si bu mat bu egg ci yàlla bu xam yàlla am ci ndigal bu joxee askar yooyu bàyyi ñu loo bàyyi ne li ñu xam mooy zikkar buy jëriñ boromam mooy seen mooy zikkar bu jëlee seen su mat kon hadis bi la waxoon ne boo jàppee si naa fële si la yàlla bëggee ba nga xam ko xamal ne naa fële yéen ñu ne la bu ma tere xëy wala yéen si wax na lépp wax na lépp yépp rek moo tax a ñu islam jaamu yàlla nga yow yéen fii ñu ko andi ak naa fële mooy jàpp ci tarixa yi ak maalik mooy boo jàppee si tarixa yi xam yàlla lii rek moo tax yàlla bind loolu yëpp yoonu tënk na ko ci benn xadis waaye ñàkk dégg lislaam dana tax nit weddi tarixa dana tax nit weddi résultat bu farate yeeg laa fi te mooy xamee kon su ko defee bul jàngleel sa bopp zikar yu la neex ngir bëgg a xam sa borom doo xam sa borom bu la neexee rek demal bu guddi jotee nga naan day jullee rakk wér daal la neex ba ñu dee loo xam ne boo yeesoo jamono dara la woon lool boo yeesoo fukki at rek boo ci yàlla demoon rek nga jàpp ci bàyyi mu jox la gaaru tariqa balaa yàgg léegi nga xam soxla lu ne fàtte ko jeex kon su ko defee naafila yooyu moo mën a xeggali ci borom bi subhanahu wa taala gel la nag yow nga xam ne xam nga sa borom bu dëgg fii la ma yàlla gi ngay wax man xegg naa yéen a nekkoo ci yàlla nag nga yeggee ci yàlla te yaa ngi yëg sa bopp nag nga ci yàlla te sa xaatir sa xelaat mu ngi lab ci mbindeef soo yeggoon ci ci ngay mën a tudd yàlla waaye bu baax yaa ngi tudd yàlla ci lab ma yàlla ku yegg ci yàlla ku ne fàtte lépp bis boo demee ba nga xam ne yow yëg nga ne fàtte woo dara ngel wala woote yegg ci yàlla. Majnun Layla dafa mos a romb ay nit ñu julli moom ku bëggoon Layla la Layla ab jigéen la mu bëgg ko lool romb mbooloo ñu julli mu ngi sàmm xañam Layla bi gisul leen dem ba dëpp gars yi na ko kays lu tax ñuy julli nga romb ñu julli oo ànd ak ñun muy kaw teew da ngeen mën julli daa ñu ne ko waaw dañ mën julli mu ne leen bëggu leen yàlla su ngeen bëggoon yàlla ni ma bëggee lay laa ngeen ma gis ndax man sàmm xajam lay laa bi nag moo tax gisuma leen yéen ngeen taxaw ak seen borom di ma gis bay xam ne dina am jëndum baax leen seen julli man loolu lay laa wax na leen dëgg ku bëgg yàlla du dañ mukk ci jaamu yàlla ndax jaam ñi yàlla tagg ñii xawaasu ibaadi ci mooy ñi ñi nga xam ne yàlla wala seen xaq ne alladina hum ala salatihim daayima ñi nga xam ne foo leen fekk ñu julli kooku nag maqaama julli du dara mooy ay yëngatu yu lay jégaloo sa borom am na ñoo xam ne yëngatu bu ñu def rek da leen jégaloo yàlla ñooñu nga xam ne moom dégg nga ala salaati yam jaayum saa su nekk ñu julli ndax seen yëngatu bu ñu mën a yëngu rek yàlla la ci jublu ngeen a jégaloo yàlla ñooñu kon saa su nekk ñu ngi jaamu yàlla te booy jaamu yàlla dafa war a ànd ak ihsaan dafa war a ànd ak rafetal lan mooy rafetal yonent mooy booy gis yàlla ni ngay mel booy jaamu yàlla nga mel ma wax naa ne saa su nekk da ngaa war a nekk ci jaamu yàlla ndax alladina bala salaat ibrahima te booy jaamu yàlla da ngaa war a rafetal luy rafetal mooy booy gis yàlla ni ngay mel booy jaamu yàlla melal ma ndax nit kuy gis yàlla dana yëg leneen fekk yaa ngi yëg leneen xamal ne teewloo boo yàlla ndax yàlla dafa rafet moo ko waxal boo xam ne inna laaha jamiilun wa yuhibbul jamaal yàlla dafa rafet bëgg lu rafet bu rafetee ni yàlla ma ne ma ndax nit dana jëloon moom ci garab déedéet ndax nit jëloon naa lu suufel lu gën a suufe yàlla ci taar jëlew lu màgg la waaye nag gën ni moom mooy mooy yonent yàlla Yuusuf jigéen ñi bañ janoo jëmm Yuusuf seede taaram Yuusuf fàtte nañ ñaar fàtte nañ jalaal fàtte jamaal fàtte nañ lu neex am lu naqari dagg nañ seen loxo te yëguñu ne ndax jaraw lan taaru Yusuf fàtteloo na leen métit bu buñ nekk seen kanam muy firi bu neex fàtte nañ ko dara duñ ko yëgatuñ bànneex boobu ndax taaru Yusuf loolu junj la ne la bu fekkee nii ñoo mën a jënoog mbindeef fàtte lu neex ak lu naqari yow mi jënoog yàlla boo fàttewu dara waxoo dëkk boo ne jëloon ak yàlla maa ngi jaamu yàlla maa ngi mel ni ku jëloon yàlla jamono bii loolu xaal laa yore te yow bu la ñoppati nga yëg demoo fenn safara sax boo ko jegee yëg tàngoor nag ngay jegee yàlla te yëgoo lenn lu bees ni nga meloon démb rek nga mel ba tey aljana sax boo ko jegee yëpp yi xet ga xam ne am na geneen xet bu lay xañ bu la xañutoon démb nag ngay waxee ne yow rek nga ci yàlla te mosoo fàtte dara gis sa borom su fekkee dund ba màgget mosoo am waxtu woo xam ne fàtte nga lépp ba yëgatoo dara ngir teewlu sa borom boo yegg nga ci yàlla waxoo def ndax ku yegg ci yàlla ihsaan te ku am ihsaan fàtte lépp ngir yàlla inna laa tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban yonent ne yàlla dafa teey nangu lu may lu teey teeyaayu aljana di fàttaloo nit métti àddina ndax yonent bi jàngal nañu ne gën a naqari dund ci àddina bis bu demee ba yàlla dugal ko aljana benn gendeem bu bu ko dugalee benn gendeem ndax naan ko ndax mos nga am naqar ci àddina mooy mukk ma bii mosuma dund naqar yàlla ak aljana ku gën a neex ku gën a teey waxoon naa leen ne leen melawu yàlla am na lépp du am melawu mel noonu yàlla moo mën a téye aljana kon ku egg ci yàlla lii dina xëy àddina yàlla sa egg ci yàlla des na moo tax egg ci ay baat yomb moom yomb waxoon naa leen tari alxuraan firi ko moom yomb kon bul nax sa bopp na egg nga ci yàlla dafa yëgg àddina baay wax na ne da naxu gaa yi ba ñuy wétali xew-xew aarif yàlla lay wétali ko aarif ci yàlla lay wakiilu aarif dafay fàttali lu dul yàlla waaye boo xam ne sa place bële ci nga wakiilu yaakaar na ne bu place bi yaa xam ne nii sa kurus bii ngay wérde yooyu si nga wat bi yaakaar nga ne boo wérdewul du am dara boo xam ne saabara si nga yaakaar ne ko sangoo woon muy yàq xam ne nii diw borom alal jëlee nga yaakaar ne bu la bàyyee nga yàq moo ne ci nga wakkiloo waxoo dëgg wakkiloo ci yàlla ñu bëri ci biir jafe na wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa ci yàlla loo am xam ne yàlla la ko jox waaye loo ñàkk doon si dooram boo meree noonu yëg ne yàlla doy na bàyyi nee na taaliba yi dara yóbbeewu leen wéttali koo xew-xew yi lu mooy gëj ñu gëj ci nee na kuy teew ñu fàtte caf ngay bànneex am na xale yu law yoo xam ne fàtte nañ caf ngay bànneex ba am na ci ñoom ñuy fàtte seen soxna yi balaa dikkal soxna yi ñu berjiliga bayane samaitari be ni ni mel ko may ko nak ko ko samaitari ko tari way moy ko fatte ci am ngay banexi ni teewlu yalla debe sa xol am mel ko non de wo mel non bu la sa bok gor gor lu ko hegg ci maqam wo ndax weso gol kon su ko defee yoon wi ma wax ku fa jaar da nga egg ci sa borom waaye boo eggee ci sa borom ba xam maa ngi ba mu lan mooy nax mooy tàngooru pay bi neexaayu pay bi wéetaayu pay bi nga xam ne loo xool moom rek la bu mu la nax ba nga jël leneen lu yàlla def ko yàlla buñ la yàlla la bu ko ñëpp waxee wut wax mun na yonent bi yàlla la mun na Cheikh Tidiane yàlla la dinaa la ci jox misaal nag bu jegeel la ma joxale ko ci jëmm ji tudd Moussa Moussa mënoo jëloon moom xam nga ñun mënuñoo xam suñu bopp samay xam yàlla ñun suñuy melo rek lañ mën a jëloon waaye mënuñoo jëloon suñu dëgg-dëgg Moussa mooy jëmm yi nga xam ne ma nga tàmbalee ci ba muy nekk tur wu sell war ko dara ci tur yàlla yi Moussa yóbbaale na aalam bi nga xam ne ruuxu la fa nekk bu xam borom la Moussa yóbbaale na aalam bi nga xam ne jëmm la fa nekk na aalam bi nga xam ne am ñem la fa nekk ak yóbbaale na alam bi nga xam ne mën nii la ci diggu waay juróom Moussa yóbbaale na alam bi nga xam ne lungu deret la yóbbaale na alam bi nga xam ne suuf la yàpp la yax la yóbbaale na alam bi nga xam ne mbéymut la ci biir yaayam Moussa yóbbaale na xale ba yóbbaale na waxambaane ba yóbbaale na jigir ba yóbbaale na paa ba yóbbaale na néew ba yóbbaale na ba mu dekkee taxaw ci peccam yàlla waaye Moussa yóbbaale na ba mu duggee aljana wala ba mu duggee safara yàlla ci yàlla musal Moussa yóbbaale ba xame ba nga xamee ne mbir yëpp dellu na ci cosaanam li yàlla wax ñëw laa ilaha tasirul umur ci yàlla lay mbir yëpp mujj mu ilahi tasirul umur mbir yëpp ci yàlla lañ koy ma xam boobu mu la bàyyi ñu ne bis bu demee ba xaar yëpp jeex xaar loolu rek dafa la dawlu taay mu ne boobaa bu mayee mu ne ay mayam bu gis ku ko may ñi dafay wax ne bu yàlla sampee benn xalifa may waxul loolu ndax bu yàlla sampee xalifa ngay gis la ko may mayami ndax xalifa bi man lañ ko may mayami ñi yàlla xalaale ba dee bi wax loolu ndax la saa yéen doom ko mu ne yàlla da ngay gis ko may waaye gis bu demee ba mbindee amatu boobu xaqaay yi ñëw maqaam boobu ñëw aaxiw rek yëpp tëjee bàyyi boobaa nga wéetaay Moussa yóbbaale la ci cosaanam ba ci feyam foofu nag la nit ñi di mën a gisee yàlla gisee dëgg-dëgg xam naa fi mu leen di gis yàlla la mu meloo yàlla ci yàlla yàlla ñuy gis danaan gis na yàlla xam nga daa daa la daa am na ay melo yoo xam ne ca daa am nga du feeñ daa amul baat amul bind amul tomb amul masque waaye boo ko jëlee bind ci téere ba pare moom gis nga melo daa ja waaye gisatoo daa ja gis nga baaje gis nga fa tomb gis nga fa masque gis nga fa ligne gis daa téere la tudd waaye moom rek daa rek la waaye nag baat boo jëlee mooy daa ji daa daa la pour na nga gis daa ci dëgg-dëgg daa ja moo tax yàlla bu mu defee tëjil yi génn yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bi mooy ay meloom ak i ci yàlla yonentu fiir na ci kenn ñi dañoo am ca meru dëgg-dëggam moom rek moo ko mën ba yàlla bind la ci la daa ji bind fekk yaa ngi gis melo yeeg tur yi loolu daal yàlla te yàlla rek fa nekk waaye bis bu demee nag di jeexee Moussa nag dafa ëmb ci jël benn ba ci mu jëm kon yàlla bul ñëw ne bëtëb Moussa mooy Moussa bu ñu ne Moussa ay la ne bët mooy Moussa sax mën naa am kuréel la te bët bi dafa ndaw bët mën naa ndaw Moussa rek kon boole bët bi mooy Moussa juum nga waaye bët bi génn moo tax bu ñu joxoon dara ne mooy naa dara yoo xam ne dara yàlla nag denc moom bët bët bët martaba la ci martabaay Moussa waaye du Moussa kon lab ci tax mukk nga saxal dara ne bu leen xale bi mooy Moussa ndax gis gi nga gis ne xale bi moom labal na goje noppee lépp lu Moussa am am na wala nga ne waxambaane bi mooy Moussa ndax li Moussa am yoo am na ko def wala nga ne jigéen bi mooy Moussa ndax li Moussa yoo am am na ko def boo ne xale bi mooy Moussa bu Moussa nekkee waxambaane ana Moussa te yow da nga doon Moussa da koo tënk ci xale bi xale bi dem na waxambaane moom mooy kon Moussa léegi xale nekkul ci waxambaane rek moom la bàyyi di wax ne jël lii boo muy feeñ ak nëb am fu mu tàmbalee fu mu yem lu mu màgg màgg du yàlla boobu nag da ko ñaar dafa am xam ne ñaari mbir yi ñu doxee ne fu yàlla nekk rek ñoom ñoom bëggu ko yàlla lu yàlla wax ne dara du seen dara doomu seen diggante seen borom mooy yàlla yi joxe ñoom lañ jox loolu rek lañ wute waaye li ñu foog foog ñu yàlla ndax melawul yàlla yonent bi jàll na beneen melo ñëw ndax yaan jàll na beneen melo ñëw lépp lu xam it dana delluwaat ci cosaanam kon su ko defee moytul di saxalal lenn ne moom mooy yàlla ngir wéet yàlla bi waaye mahjub bi moom laay tëjee moytul di xamal yàlla ak bokkaale jàpp ne leneen xam na fi lu moom xam nga ñàkk a dajal melo war a problème kenn dajal melo bu ma la doon jox misaal dama ne la wax lii mel gis diw ak diw ne lii du yàlla ndax wuute laa lim jàng ci téere yi ñàkk dajal dara yàlla dafa mel ni rek bu jàng ñu ne ko gis mu gis baaraamu Moussa bi mu teg mel yooyu tamaaman ne Moussa ku njool la mu xool baaraam bi gàtt léegi Moussa ku rëy la mu xool baaraam ba ndaw dina Moussa dafay dégg mu ko gis baaraam ba dégg gis mu gis baaraam ba gis mooy kon du Moussa. ñu jàngal ko ne Moussa dafa xees mu gis karaw mu ñuul ko mais yaa def du Moussa kooku du xam Moussa maanaam dama la ko wax ne la gis melo mu wuuteeg melo yi la jàngoon ci yàlla tamaaman tam nga jàpp ne yàlla am na ko xaar ndax yow boo xoolee si ne mu bokk rek. gis fa melo yoo xam ne wuute naa sa melo te yow rek yow rek ñàkk dajal melo dana nit gërëm nit mën nañ laa ñeeñ ne la dafa duuf yàpp ñoo nooy nga dajeeg bëñ yee mu dëgër nga yaa loolu ñeeñ fekk walaay ñeeñ la waaye da ngaa dajul ay melo kon su ko defee buñ di nañ xam kan mooy yàlla jox ko gëddam bàyyiwul saxali leneen lu dul yàlla ci xam ni ndax loolu bokkaal lay nangu ko yàlla buñ wutit ñu neef dañ wut yàlla buñ dundal suñu jëmm nañ dundal suñu rox jëm ñu doomu aadama war waay la roxu doomu aadama mooy dégg-dégg doomu aadama mooy ki waat jëmm ji la waat roxo gi la dafa mel ni nit ku war ko daw doo ko gis parce que ren gis muy daw fekk nit ki ci moo koy dawal yow it sa jëmm ji mu ngi fekk sa roxo gi ci moo koy yëngal moo tax mënu ngi di génn ji la teg sa jëmm ji war a waay fan la jëm ci boromam li nga koy jox ci ay xéwal yóbbul la yóbbu la comme ku yore sa daaba fas di jox lu lekk ak naan ngir mën cee tukki loolu rek la borom xel ndax fasam dana ko dëgër boppam déedéet jëmm ji nag dafa mel ni am na xel gaa waaye melul ni xelu ki war fas woon roxo gi moo yore xel mu baax jëmm ji xel mu mag yi léeg-léegi roomu dee ci jëmm ñu rëbb ko fa ne moom bu bëri bokk na mooy bàkkaar bëri di teewoo àdduna bëgg lu dul yàlla dana rey sa waxu ba dee ci biir xam nga di dee ci jëmm ngir bàkkaar bëri ngir sori yàlla da waram du koy jëmm jëmee mel ni fokk bi dox bu kenn teew loolu na ko mbëkk fu ne mën na faa dugg léeg-léeg mu avancé léeg-léeg mu kon mu njiit woo jëmm yi baray roxo yi jëmm yi ci yàlla la jëm roxo yi ci yàlla la jëm nam ko jëmee mooy jëfandikoo sharia di def lu baax di bàyyi lu won di lu baax di tere lu bon di xeeñ ci yàlla di moytu bokkaale loolu moo ñuy dimbale bañ mën a egg ci borom bi subhaanahu wa taala bis bu ñu yeggee ci yàlla da gën a yegg doon ñëwati benn duñ bokk ci yàlla bu xëyee ñu def lañu wuti am na koo xam ne bu xëyee xaalis lay wuti ci daraja lay wuti ci mbooloo lay wuti ci ay leer lay wuti ci ay karaama lay wuti ci ay maqaama lay wuti leen pour def ñu yàlla yàlla mi nga xam ne moo la jëlee loolu lépp boo ko bëggee wut faw nga jël loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu teg ko sa kanam muy wax xalifa imaaman kunta anta imaamu imaam boobu mooy Cheikh Yane boo ko teg ko sa kanam boo ko am seen du mat mu ne ummat di la wan yoon wi foo nga gën leen nga roxo sa jëm boo nga jàppee jëmm ji comme war waay boo war ko mu xeggale ci yàlla xam nga ki war war waay bu rafet ak ki war war waay bu ñaaw lan ngay ko nit ki la ñëwoon jëmm ji mu yor bu moom loolu war waay rek mën naa rafet mën naa ñaaw waaye nit ki moom baaxam moo ay rafetal borom moo koy ñaawal te nit ki dëgg-dëgg mooy rox loolu la Cheikh Tidiane parce que nit dëgg-dëgg mooy rox ñi di daw di jëm ci mbindeef yow dawal jëm ci yàlla bu ñi di def wut mbindeef wala jege jege sa borom bu ko defee bis boo amee yàlla dina ko métti yonentu nee sa bakkaar la leen war a jege yàlla te yàlla la ko def ba bakkaar yi mu delloo leen waaye safara sax dana delloo kon mbugal yi kéeraay yi moo ko waral boo bëggee mucc si mbugal nag génnal ci kéeraay bu la àdduna ndax nga ko wuur guddeeg bëccëg parce que àdduna yàlla bare ndax lan ndax yaa xelaat yow yaa jéem yaa sottee kon jàpp nga ne yow waaye alquran mun naa la bu yow man chaaw rek daal incha allah yàlla ne li ngeen bëgg sax maa leen ko bëggaloo kon moom mooy bëggaloo ko la ne jéem ba mu sotti yàlla ne la hawla wala quwwata illa billah ci kattanam nga ko defee xadrullahi borom siraaj saa yi li mu ko firee mooy qudratullahi kattanu yàlla maanaam kattan li nga defee laa bëgg wax ne kattanu yàlla lu mu yàlla lu la ci kattanu yàlla nga defee ci bëgg-bëgg yàlla nga bëggee ba mu sottee yàlla ne jëfam la yonent ne mu ngi amee qul qadarallaahu wa maa shaa faal xam ne yàlla dogal te lu ko neex mu def kon jëf ji jëf waaye ni ak ñoom yow boo ko xoolee yaakaar ne dara yàlla bari kon bu wut loolu loolu bànneex la ko ci mu ngi ci wut sa mu ngi ci xegg sa borom loolu mooy bànneex moom la la bàyyi wut moom la la yàlla wut boo bëggee xam bu dee boo bëggee jël màtte di daj tuuti nga wàññeeku loolu xoolal seetaan na mbir mi di lay xoolal waaye boobu si daal dañuy wax wax ju jub ci am na alal kii wax ci tontu waaye ñoom ñoo dara ñu wax ñu ko wax comment bu jiyee rek ñu koy yëngal li dee fi li ci xew ñu war a def ñun ñu may xottale loxo kat ñu yàlla mu leen yëngal ku mu wax loolu doo wax moo tax yow ma xëyaat cër yi sax dañuy wax ah nit ki ne cër yi lu tax damay seede mu ne an taqara laahu la si an taqa kulla ci yàlla mi tudd loolu lépp moo ci tudd loo tey kon sa wax ji ngay wax ñu ne tontu bu yaakaar ne yow la yàlla rek kàddu gi du sa melo kàddu gi may wax mën naa daal di léegi nit teg ko téléphone bi di ko wax niñ ko enregistré ci téléphone bi noonu la ko yàlla enregistré sama làmbañ te ni ko borom bi enregistré woon noonu rek la génnee mu ne ku xam yàlla doo la waaye ko neex mu feeñ ndax moom moom yëpp su nga xam ne yàlla bare na ci bul wakkilu ci àddina nga xam ni liñ ci war a am jeex yonent nee na balaa ngay bind yàlla war a am problème bi mooy dañ laa wunul wax lu mu nekk nga war a wut dara yàlla dogal na la nga ko am waaye mu ne alxames nga ko war a am ci Cheikh Ahmad Daam nga koy amee ci heure sàngam aajo sàngam nga koy wax wala nga koy defal mu jox la loolu yow nga tey sànq ne la nga am wërsëg danga dox ba dee doon dara gërëm di maa dugg ci diw dugg ci diw li jëm ci nit ñi ñoo bon ñoo soxal man dama naa ñu dimbali ma kenn dimbalul ma sama nijaay seetaan na ma fekk dara waxtu la jotuma muy alxames bi jot yàlla toppal sa xol bi la demal si Cheikh Ahmad Dame gërëm si Cheikh Ahmad Dame mu ne defal naa nga nga def ko Cheikh Ahmad Dame jërëjëf di wax affaire bi jox ko nga jël ko jox ko nga def mais jërëjëf Cheikh Ahmad Dame bu dul woon moom fekk du dara yàlla rek waaye ni ñuy liggéey heure yi ak waxtu bi ak naka la moo tax ñu mën di sonn bu ñu xamoon naka la la ñuy xaar ba mu ba mu ñëw rek ñu jël ko dana ko kon lu wakkilu ci loolu lu yàq sa temps ci wut loo am muy wërsëg bu mu la jaral ñaawoo kenn bu mu la jaral amul problème ak kenn sa temps yëpp def ko ci wóor yàlla ndax loolu moo lay jaral bis boo yeggee sa borom xam ne am nga bànneex bul yàq sa temps ci li guddal sa fan ndax yàlla bind na sa fan ñaata ak nga war a dund balaa ngay génn balaa ngay jóg jàng kon nañ seetlaat yére yi jëf yi ñu ko jëf te yàlla tax defe naa guddal naa trop te it loolu daal dama ko jëlee nii ndax mënoon a di kat waaye rek dama war a delluwaat ci xajal gi te programme bi rek mu mën a moo tax ma ñu leen a ba fii ndax ay ndaw ñu jéem sant la ak war ngaa góorgóorlu di ne que waxtaan bi dégg nga thème bi ñu waroon a jox daaye dama ñëw ñu daal war a xam ma ci xollee rek. ci lenn ci li nga xam ni moo tax bàyyi jóg mooy ñu xam ko ak yoon yi ngay jaar mooy ñu xam ko waaye la santee dara boobu ñu jéem lu xam-xam nag dañ doon waxee yàlla rek lañu dimbali ko bu baax rek wax bëgg ñoo jëm kenn bu baax yi may dugal ñëpp ci jub yàlla la ci jënd borom xam-xam yi dañ ko mottee ndax ñu ngi doon suñu wet ñu ngi koy dimbali a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.